Abdoulaye Diallo bu Serigne Touba ñoo ñëw lay nuyu presse sénégalaise bi moo la seet si pour waxtaan ak yow doo ku ñuy présenté si biir réew mi def nga say preuve ñëpp la xam si wàllu secteur bi ngay yëngu si wàllu faj mais euh, du tere bëggoon nañu si tënk nga defal ñu beneen présentation dina beesaat si nit ñi aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin naasi lxaq bilxaq alhamdulillah Abdoulaye Diallo, c'est né à Canel, né à Canel, grandi à Canel, grandi entre Dakar et Canel, qui a fait ses études secondaires à Dakar, mais qui, a, à partir de 22 ans, a, a fait l'aventure euh, jusqu'à l'âge de euh, ans au Gabon. bon actuellement nag maa ngi yëngu ci médecine naturelle je crois que actuellement je ne suis plus quelqu'un à présenter monde bi xam nañ ma déjà cabinet njatiri bi muy bi muy diriger j'ai l'habitude de dire que de Dieu voilà ñaan bu nangu la wax naa ko ci ay émissions yu bëree bëri ay xalwa lañu ñu dugg si ñaan borom bi ku aajam dul faju sax ba mu yegg si léegi moom phrase boobu ñëpp jël nañ fajkat yëpp léegi jël nañ ko je crois que boo leen xoolee archive yi man maa njëkk ne képp ku aajam dul faju yàlla bu mu ñëw ñuy jëflante voilà donc on est là a révolutionné la médecine quoi gëm suñu bopp nag waaw te xam ne hmm, gëwuma médecine moderne j'ose le dire maa tey et xam naa ne médecine naturelle bi may def li muy faj médecine moderne du ko du ko faj parce que télé nañu ci arthrose télé nañu télé nañu ci rhumatisme télé nañu ci polyarthrite rhumatoïde télé nañu ci nerf sciatique télé nañu ci hernie discale télé nañu ci diabète télé nañu ci AVC télé nañu ci hépatite te maa ngi koy faj télé nañu sax ci spermogramme do necrospermie do azoospermie do hipospermie do oligospermie do asténospermie do téranospermie do hyperspermie munuñ ci tus ku ko am di nga jël ay médicaments pendant cinq ans doo gis benn résultat parce que les origines ñoom xamuñu ko ça n'existe pas dans le vocabulaire français mooy ndoxum siti colopathie télé nañ ko man je règle ça en une seule prise colopathie que ça soit fonctionnelle ou chronique benn prise hémorroïde moom kenn waxatu ko voilà donc euh, maa ngi xaar nga poser une question ma développé la. Euh, donc balaa ñuy ñëw si wàllu faj ñu ba pare euh, yi nga lim nii yëpp noo ko jàngee nan nga ko xamee ba maîtriser ko tey nga am si ay solution te médecine bi amuñu si solution. don de Dieu di ci gërëm nag ku tudd Ndiol Ba di ci gërëm ku tudd Thierno Djibi Agnam Godo yéen nag yàlla yërëm. di ci gërëm Thierno Ousmane di jaaba di ci gërëm ñi ma jot a xam enda di ci gërëm marocain yi tunisien yi mauritanien yi gabonais yi ñi nga xamante ne jàngal nañ ma ay di gërëm surtout allahu subhanahu wa parce que bu amee barke moom la daawal naa def maraboutage asraar di dóor rek di dóor jànk si xaalis nit ñi rek ay million rek fu moroom mu ñu ne jom goo nga ngi ne kii moo yor dëgg gi fekk da ngay ñëw wax ma sa aaju ma encaissé un million du ma tere nelaw su may wér de samay awraadu bopp laay wér sa problème bu réglé temps mii bu réglé c'est problème parce que da nga ñëw dénk ma problème pour ma ñaan si yàlla c'est pas forcé d'avoir le résultat te dama leen naan incha allah xam nga ñu bëri xamuñu ne sëriñ dañ leen di nax incha allah kay aaju bi leen faju ah nee na la war na la moom moom mooy faj aaju et je me vois mal di ñaanal nit mel ni maa ko gën ci yàlla nit ki bu nar a jël un million trois million di fay di ma ñaanal bu demoon jox ndayam cinquante mille jël dix mille dem ci daar alxuraan yi saraxe laax aajam dina faju mooy gën a gaaw sax waxuma nag ñaan amut mais man li ma doon pratiquer asrar gëwuma gëwuma ko ci xale il fallait que chercher mieux pour lekk lu lew ñaaña faal ajaa ñaaña faal bu Kolda mu may dëgg moo ma héberger këram Kolda pour li ma lekkoon poson bi ma lekkoon yëpp mu génn comme Moussa ni mu nekkoon kër bu ba poson bi mu nekkoon kër Firawna yëpp génn moom moo doon dundal may jaamu yàlla di baalu yàlla ak parce que xamoon naa ne am naa potentiel xamoon naa ne yaa un secret en moi secret faj ñaan ci yàlla nag ba yàlla nangul bi ma yàlla nangulee yee naa ki ki ma dendaloon nee ko li doon war am naa ko c'est fini mission à Kolda est terminée bientôt madame te bi ma ko waxee ba léegi gis nañ ni j'ai raison chaque jour macha allah day yokk rek tey j'ai même pas besoin des médias bouche à l'oreille bi ma bi ma am rek sant naa bu wéree wéree wéree mais bu soo gisee tey lii par exemple je crois que même yéen c'est rare ngeen def lii xanaa benn ministre wala président wala député bu bu woo de presse. mais lu tax ñu def ko parce que jéego yi nga def la ñu intéressé wu ñëw si yow pour waxtaan ak ko quoi. wii média jàkkaarloo ak fajkat sant yàlla kii Mahfouz sama chargé de communication la xëy na ñu ngi ensemble dara ñaaw ci te xam naa nitu dëgg la su ma nekkoon ci kàcc. il ne va pas hésiter à me ma ko woon sax du ñëw am na fulla te am na personnalité aussi libaas ma doon idolam mooy woy papaati mënu ma ko jur su gisuloon aussi su gisoon caaxaan du ma nekk idolam man dama def ma leer na wërsëg yàllaa ko yor damay sabablu rek bu dee nag wërsëg àdduna man damaa doylu je me je crois que man maa gën a riche àdduna bi yëpp parce que damaa doylu ci li ma am wututuma leneen bu dee ay kër am naa ko bu dee ay daaba am naa ko bu dee njaboot am naa ko bu dee ay jabar am naa ko lu mën a mati fu ma dem sama caabi ngi sama poche maa ubbi sama kër dugg nekkuma ci lois et j'ai j'ai j'ai autant de respect j'ai même pas besoin de garde corps tey popularité bi ma am fooy dem escorte la ak garde corps man soxlu ma parce que xam naa ci dëgg laa nekk te ñëpp a ma soxla c'est une fierté même pour ma famille gaare sa oto dugg ci Auchan wala dugg ci jënd ay ay jën eh, benn marché nga gis ku nekk daw ñëw ci yow say doom say jabar nga gis eh docteur eh, nangam nangam c'est beau hein et c'est ce qu'on a besoin on souffre pour ne pas souffrir on travaille pour avoir une dignité loolu moo tax may liggéey ma déggu nag ci li may def am ci fulla nag bu mot sëkk ñëpp xam nañ patient yëpp xam nañu fi fulla fi ne ak loo mënta doon ak ko mënta doon boo fi ñëwee sama kanam doo doo ma ci patient rek ci réduit à zéro ñu toog nga gis yàlla bi ne ci man ma gis yàlla bi ne ci yow ñuy jëflante nee naa ñëpp man xaw ma dara mënuma dara man j'ai un cœur pour écouter une compétence pour soigner Dieu pour guérir lii mooy sama slogan dégg boo ñëwee ñu waxtaan man du ma consulter du ma fay ko consultation du fay ko am na un certain Diallo là que j'ai comment donné euh, carte visite am mu ngi golf di di di di à mon mais nit ñi dofuñu yéen a ngi may gis ci YouTube kay soo leen demee gis du man kay war nga xam c'est comme am na fii aussi Petit Mbao fii am na beneen docteur bu tudd Diallo Ibrahim kooku boo booy fay ko 10 000 consultation lay fay mën na fay consultation boo demee kay ñu ne fay consultation yi nga xam ne ñoo ci Abdoulaye Diallo moom Petit Mbao fële la nekk yoonu Grand Mbao man maa ngi ci mango yi léegi sax clando bu leen lee sax arrêt mango yi ne la rek arrêt docteur Abdoulaye Diallo jeex je suis maa fi mujjee dëkk maa fi gën a populaire sant yàlla et je suis fier aussi de tout ça je suis fier d'être euh, en face des hommes comme vous tey laa la mos a gis mais ci suuf ni ma déggee nga wax sa famille rek xam naa ne t'es un homme responsable ça déjà c'est c'est une richesse lii mooy richesse am nit ñu baax ñi xam nga man mosuñ maa may lu dul ren gis fi ay panier ndogu ay sukkur koor ren lañ ma mës may am na benn femme médecin euh, infirmière la en Italie maa ko faj euh, hernie discale mun loolu sax bouger j'ose même appeler son nom nii ma a ngi nii maa ko faj hernie actuellement démb la ma woo mu ne ma benn femme euh, la jox colis daf ma ko war a indil des parfums de classe musuñ maa may bi ma juddoo ba tey léegi lañ may doog a may c'est parce que je fais de je, je je me rends compte que je suis quelqu'un je suis en train de faire de bonnes choses sama accident bi ma def nii euh, findel na ko les appels que je reçois les pleurs que j'entends euh, ñii daw jublu kër gi ñii jógee Fuuta ñëw fekk ma Touba ñii jógee Dakar ñëw fekk ma Touba fi ma hospitalisé woon firndeel na lépp Euh, bon docteur euh, vraiment euh, man xaw naa yéemu tuuti quoi simplicité bi ak sincérité bi quoi si biir discours bi loolu laa sentir mais dañuy dugg si wàllu faj mi mm-hmm. gis nañ ne wàllu bi ngay lim si hépatite B nga mujjee gis nañ ne moo ngi def ay ravage yu métti métti métti si biir réew mi mm-hmm. mën nga ñu wax lan mooy hépatite B balaa ñuy dem si solution yi avant tout d'abord hépatite cinq hépatite ñu am dafa am A am B am C am D am E E bi xaw ma ci dara D bi xaw ma ci dara C bi mënuma ci tus B bi lay faj A bi anticorps yi ñoo koy jël B bi nag moo lëmbee réew mi moo lëmbee àdduna virus la moom ak virus sida ñoo nuru li koy joxe la plupart c'est les fruits de mer dégg nga de maa ngi ciy def ay preuve yoo xamante ne yu extra extraordinaire ba ay docteur di ma consulter de grands médecins européens ma yéem leen sax bokk parce que am na benn docteur bu ma ne parce que Suisse la Suisse la nekk gis na mu am trois patients yoo xam ne maa leen faj mu jaral ko mu déplacé wu mu ne ma avant tu soignais en six mois maintenant tu as dit huit mois lu tax ma ne ko parce que xol bi ak fois bi dañuy nëbbi deret boo xamante ne dañ koy génne chaque quarante cinq jours comme genre reflux comme comme genre comme comme genre bile bile quoi mu ne ma kii la di ma ne ko xam-xam yàlla la la ñose boo ko xamee am na yoo xamante ne du la ma ne ko si tu le savais pas il faut le savoir léegi bu dee 6 mois yi 6e mois wala 5e mois bi deret bi dugg na ci deret bi duggoon ci kii bi génn na ce sang là est infecté léegi 6 mois yi pare na boo demee deret boobu bu génnee il va réinfecter tout le corps donc c'est pourquoi j'ai rajouté deux mois comprendre ñoom boo amee hépatite B dañ lay jox ay rendez-vous 6 mois demal ñëwaat demal ñëwaat ñu naan mu ngi nelaw yeewoogul yow lii nelaw munoo ko munoo ko faj bu yeewoo foo jëm ba nit ki dee j'ai interpellé parce barki dëmb bi ma defalee émission ci sama accident bi le lendemain dem ko woo ma ne ko il faut une autre émission parce que ñu indil benn cas boo xam ne c'était te net net le gars bu yéexoon tuuti mu dee ci hépatite bu yéexoon tuuti rek tumeur bi mën na dem ba néewiloo biir bi wala tànk yi mënut ma ko faj affaire bi dafa yëm mais l' état a sorti quatorze milliards pour des recherches sur l'hépatite ci télé laa ko déglu il y deux ans boobu j'étais à Ziguinchor ils ont un digne fils de ce pays qui traite l'hépatite j'ai tout le temps lancé des messages bu dee kay xaw xaw ma ni ko olof di waxee werante xuuxaan tekki tubéy wala ñun on ne pas croire en li tubaab bi xam rek loolu la ñuy xam li tubaab bi wax rek loolu la ñuy wax tubaab daa mën a faj dara ñoom ils se soignent avec des plantes dañoo mën a faj palu dañoo mën a faj grippe ma jox la benn exemple boo sojee boo jëlee boo demee pharmacie jël garab trois jours yëpp soj bi day dem rek day day tar rek bañal jël garab trois jours aussi da ngay da ngay soj rek c'est pareil man boo ñëwee ci man bopp bu métti doo génn sama kër wéro boo ñëwee ci man biir bu métti doo génn sama kër wéro yow ñu jox la garab naa la matin midi soir ci biir bu métti rek wala boobu métti te biir day rey góor regarde par exemple le cas de fu ñu ko teg ci seen xam-xam mënu leen ko ñun mën nañ ko man colopathie kooku kay loolu loolu loolu loolu wérante wérante tuñ ko sax. sonal na nit ñi ah. colopathie man benn prise 15000 francs lay jar benn yoo ngay naan garab bi nga wér que ça soit fonctionnel ou chronique benn yoo naan garab en 8 heures temps nga takk ak ak ak colopathie. mais colopathie colopathie mooy ndeyu feebar yi moom ak siti colopathie mooy indi hémorroïde colopathie mooy indi rétrécissement sexuel colopathie mooy indi éjaculation précoce colopathie mooy indi faiblesse sexuelle mais pas impuissance sexuelle. colopathie mooy tax tànk yi di tàng colopathie mooy tax ndigg di métti colopathie moo tax fii ba fii di métti colopathie bi bu demee ba jox la hémorroïde fii ba fii day métti day da ngay mel ni ku fasu da ngay mel ni kuy liggéey pour nga yeew sax problème la pour nga nelaw sax problème te boo nelawee pour nga jóg problème la sa yaram di tàng colopathie day lëndëmal bët colopathie day indi des moo de tête dul jeex ci àdduna man par exemple boo amee migraine tout le temps nga dem fu ne doo wér man ci biir bi lay njëkkee damay vidé biir ba pare le lendemain nga ñëwaat ma ma am lu ma la def doo génn kër gi boobu bi wér. ba léegi damay delluwaat si hépatite B bi. Mhm. Euh, tey wàlle wala du wàlle. très wàlle kay. ak ban très contagieux ak contagieux rek c'est-à-dire boo ko amee rek moytu c'est une maladie infectieuse nag voilà justement. tey wàlle dafa mel nga am infection voilà infection par exemple est-ce que hôpital mën na ko man dama koy faj ci quatre semaines même bu dee commencé nga di génnee pu même bu amee góom quatre semaine fibrome dañ ko opérer man dama koy traité selon la longueur selon le diamètre deux mois trois mois quatre mois cinq mois kyste dañ koy opérer man dama koy faj daan garab mu dañ hernie dama koy faj naan garab mu dañ nerf sciatique ñoom sax dañuy naan nerf sciatique hernie hernie discale dañu koy naan nerf sciatique c'est pas vrai c'est pas pareil je suis désolé L4 L1 L2 L3 L4 L5 C1 C2 C3 C4 c xam nga ne ak nerf sciatique bokkul il faut il faut donner la différence L1 l ñu ne ko nerf sciatique L1 L2 nerf sciatique ok L4 L5 pourquoi nerf sciatique ko dañ lay opérer te opération bi risque la mën nga ñëw ma faj la ci 4 fois 4 semaines 16 semaines et tu ne paies que 40 000 par 4 semaines donc 160 000 doo opérer nga wér polyarthrite rhumatoïde dañ lay bës ay corticoïdes lañ lay nalloo ba nga bëgg a dee avec tous les effets secondaires que comporte day calmer douleur rek du la mës a faj man je te soigne en quatre fois quatre semaines rhumatisme mënuñ ko je te traite en trois fois quatre semaine nerf sciatique en trois fois quatre semaine parce que nerf sciatique ak hernie discale bokk arthrose duñ ko mës a mën a faj duñ ko mës mën a faj parce que xamuñu day siti te siti mooy indi arthrose siti mooy wooloo yokk yi duñ ko mës mën a faj man balaa may faj arthrose da ngay faj siti ba pare après nga def trois fois quatre semaines trois fois quatre semaines pour arthrose donc même spermogramme bi ma doon wax sànq duñ ko mës a mën a faj parce que siti mooy mooy rey maniou bi bëri na ay jigéen par exemple yu stérile yu mënul am doom ñu naan rab la c'est pas du rab c'est pas vrai siti kese moo leen tram doom mais siti bii nag du koy fajee ci mbedd yi de ay reenu daqaar ay reenu dànk ay nangam c'est pas ça siti dafa am lu koy traité bàyyi leen reenu daqaar boo leen bëggul am problème problème de de rein je suis tout à fait d'accord nag ñu contre la médecine traditionnelle parce que ñi koy pratiquer quatre-vingt-dix-huit pour cent jànguñu médecine xamuñu dosage xamuñu sax valeur nit xamuñu sax poids nit ñoom daal xaalis la ñuy gis mais bon Dieu euh, croyez quand même en à nous mettez sur épreuve et am na lu état bi xamul xam nga dañ ma minimiser ça fait un an maa ngi wax avril ba léegi avril daaw ba léegi maa ngi wax ci ci ci réseaux sociaux woo naa leen alerte na leen laaj naa leen sama sécurité dañ ko veiller et j'ai droit à ma sécurité j'ai droit de réclamer une sécurité parce que je suis citoyen. pourquoi ngay réclamer parce que y a des lobbies. li may wax nii dañ ma bàyyi noonu toog fa ju fajuñu dara ñëpp xam nañ ñu pharmacie lobby la ñëpp xam nañ pharmacie ak or ñoo nuroo ñëpp xam nañ pharmacie ak ak ak ak ak ak pétrole ñoo nuroo. gis nañ ni yi tamit garab yi kooku ça c'est pas mon problème. loolu c'est pas mon niveau man je parle de ma médecine. nañu bàyyi nit ñu ñi naan bàyyi leen médecin traditionnel arrêté suñu bàyyi médecin traditionnel ñu ñu mën a faj ñoom dañ ko mën a faj yéen xamu leen dara te ñoom fii la ñuy mujj de bu ñu amee faj maa koy faj ñii di daan arrêté yëpp ñu ngi daw fi diabète seen diabète maa koy faj entre parenthèses parlant de diabète dinañ ñëw si diabète je m'excuse près de tous les patients xër pendant deux mois xër kese taxoon na may mélanger garabu diabète ak pancréas mënul ànd kër kese da nga faj jabet ba pare bu la neex nga renouveler sa pancréas mais boo booy mélanger ñaar yi doo gaaw wér am na nag ñi ci wér mais je crois que c'est soixante pour cent qui d'échec léegi bàyyi naa loolu je soigne rien que le diabète bu defee zéro ba quatre ans je traite cent en un mois quatre ans ba dix ans en deux mois dix ans et plus c'est trois mois te dañuy léegi ñoom ñu ngi yéene fii ay clients barke nabi Moustapha même des pharmaciens envoient des des des patients yi wallahi barke alquran bon c'est qu'il y a des gens ils de très bon cœur dañoo xam ne nit ñi dañoo feebar xam nga plateau médical Sénégal ça va pas xoolal prostate da ngay dem ñu sonde la sonde la ba infecté la man je te traite en quatre semaines du ma laal sa tubéy muy prostate buy sawlu lu bëri muy prostate bu tëj saw yi muy prostate bu am góom muy prostate bu tàng muy prostate bu néewi comprendre dem na koy faj en quatre semaines maximum en deux semaines sax mun nga wér docteur Samb mooy naan yow da ngeen naan en quatre semaines man demee naan en trois jours parce que prostate am ci trois jours laa ko fajal soxlatoo naan cardox du dem ñoo déggoon sama vidéo ak Mansour Diop rek ñu dem defi réunion kii warul wax lii warul wax lii warul wax lii en avril dernier j'étais informé de tout ça dañ ma mën a dara man de <laughs> chacun a libre de s'exprimer ah du ma tooñ nag liberté d'expression ne veut pas dire insulter les gens ça mais man dama am sama dëkk ma xam ne je peux sauver mon peuple et je suis né pour sauver ce peuple là mais dama koy wane te li ma doon wax léegi leer na ça un an ça fait un an que ça dure et j'ai fait des résultats xanaa ñoom ñoom mënuñu jël même ñaari agent secret wala ñaari ñaari agent rek ministère de la santé de décréter ñaari agent walla ñett sax ñuy ñëw yéendo ak man xool ni may liggéey et chaque jour qu'il faut qu'il fasse le rapport barke Seydina Mouhamed bu ñu ko defee dinañ ma jox plus que l'hôpital Dantec man maa la ko parce que je sais que l'État veut soigner son peuple mais problème bi nag à qui se fier. si ça le problème man je sais je le comprends mais quand même noonu noonu di jël nañu gëm kenn au moins kenn kenn rek kenn nañu nañu gëm kenn rek man nañ ma tester rek bu buñ ma fay dara soxlu ma seen alal man li ma yor doy na ma ñaanu ma yàlla lekk dërëm état man kay état moo may lekk samay impôt indirect su ma jëndee oto ki ma jaay oto douane bi ma li mu fayal maa ko remboursé su ma jëndee essence fay naa TVA su ma naanee eau minérale fay naa TVA su ma jëndee téléphone fay naa TVA su ma woowee téléphone crédit fay naa TVA su ma taayee lamp fay naa TVA su ma naanee ndox fay naa TVA su ma sangoo fay naa TVA samay garab bu ñu koy transporté fay naa TVA man kay maa leen fay. donc dañuy dañuy tëj buntu hépatique bi ak euh, benn question euh, sénégalais yi bari na mu dal am na ñoo xamante euh, dafa avancé mu am ñoo xamante ne ay porteurs sains la ñu léegi ñun li ñu buggoon xam. je signale que l'hépatite B. li ñu buggoon xam hépatite be ci boppam mën na nekk tumeur. waaw am na fu muy ak lu mënuma ko. waaw pour question bi s'il vous plaît. Mm-hmm. man li ma bëgg a xam. c'est-à-dire ñi nga xamante ne ay porteurs sains la ñu. Mm-hmm. ñooñu ngay faj wala ñi nga xamante ne hépatite bi dem na nekk ci foie bi. comme commencé na développer boo commencé ci. moom laa la wax ni porteur sain lay faj. Parce que qu'on les appelle séropositifs. C'est comme dire séropositif. en sida. boo demee kay bu attaqué fag yi nee naa la léegi-léegi bala ngaa jeexal sa question sax mënutuma ci dara mais nag bu dee avancé wul bu dee tuuti tumeur nga am mun naa la booleel garabu tumeur garabu hépatite ça va te sauver j'en ai trois j'en ai trois seen numéro yaa ngi nii man kay maa ngi leen di xaar rek ku fi wér ku fi bindu yor si numéro Regarde le cas de Diabète. Tout le monde connaît le professeur Noah Cissé de Ziguinchor. Hmm? Tapez YouTube, bref. Noah Cissé, même la France est venue faire des honneurs à Noah Cissé à Ziguinchor. maa ko faj Diabète. dem leen sama YouTube c'est témoignage am yaa ngi foofu. Diabète am depuis 93 maa ko faj loolu en 2020. astafurlah décembre 2019 maa ko faj ba léegi amatul cas jabet da nga koy judduwaale. non illa euh, day ñëw ni naturellement quoi nga wax ni si. man am naa jabet actuellement judduwaale wu ma ko sama papa jabet musu tension il est toujours vivant yaa ngi dégg mm-hmm. mais temps yi xam naa ne am naa suukar am na ñoo xamante ne dañ koy irrité dañ koy donn yaa ngi may dégg am ñoo xamante ne ci lekkin bi la ce qu'il faut nag arrêter c'est de prendre du poids comme genre ñi ñii kay seen tension seen diabète day yomb nit dafa sénégalais am benn culture bu bu dof quoi pata yaram yaram lu mu njëriñ yaram lu mu njëriñ yaram kay maladie rek man client jabir bu ñëwee sax gis nga ni ma eh maigrir moo gën grossir maigrir bu ñu xamul lu ci ne cholestérol xoola cholestérol par exemple benn garab lañ la jox un comprimé par jour ngay ah, xaw <laughs> ma ko comprendre ci bërëb bi nag boo jàkkaarloo ak man rek man naa xam. mais ñii ne moom c'est Abdoulaye Diallo simple Abdoulaye Diallo mais su ma toogee nag moom di liggéey ak kooku moom indi jaay ñu fi la xëy na ça c'est le lieutenant de du travail. docteur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax gis nañ ne depuis un eh, an Covid dugg na si biir réew mi mm. eh, eh, te taux de mortalité bi lu tax mu gën a bëri Covid day ñëw rek fekk la nga am diabète mu def ay ravages yu bëri. xaw ma ci dara léegi nag. xaw ma ci dara yan solution. xaw ma ci dara xaw ma ci bul ma dugal ci affaire Covid s'il te plaît dem nañ ci professeur Seydi. maa ngi ñëw ba léegi question bi. ma ne. Ah. bul ma wax waxu Covid ay diabète ay. donc damay damay formuler waat question bi léegi. Mhm. waaw eh, gis nañu diabète un an bii nii ñu nekk nii ñu bëri dañ ci décédé. diabète wala Covid. non diab en fait c'est-à-dire euh, Covid bi bu ñëwee moom laa la doon expliquer. waaw mais moo tax nag mais bi moo tax ma ne la moo nag ma la bu ci waa Covid laal lu ci lii ay tokkat cigarette yi duñu jàpp duñu jàpp Covid ay tension ay jab bu ma ci bu ma wax loolu ma xamul. léegi jabet lan nga yaakaar ne loolu mooy solution pour mu mën a wàññeeku pour nit ñi mën ko moytu. am régime bu baax des sports wàññi suukar Sénégal dañoo bëgg lu neex on mange mal très mal koo gis dafa am colopathie ak hémorroïde koo gis dafa am cholestérol koo gis dafa am jabet. xoolal ni ñuy defaree bisaab rek lu ne lañ ci dugal boo nee ni ñu ne defar ba mu baax dama xamul lu ñuy defar ba mu baax bisaab ni mu baaxee boo ci defee tuuti suukar kay doy waaye dolli ci jinjeer dolli ci naana dolli ci te naana bu ñu baxal day ree góor ataaya sax ataaya boo koy def bul bàyyi naana ci biir baraade bi muy bax day wàññi sa ngóora bouillon yooyu ñuy lekk nii xoole nit nga dem ci xew nga gis benn plat poulet poulet bi am ay nen am leneen ak leneen ñu naan nag c'est joli décoration bi ah sa décoration rafet na yaa ngi lekk lu bon poulet nen jën nen fiir yi sax ñu dafa la ci nen sénégalais mange ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb guddi ceeb bëccëg ñu foog ne nag ñoo fi toj légumes on alimentation pauvre en fibres c'est pourquoi y a trop d'hémorroïdes ici xoolee hémorroïdes gars yi dañu leen di baab di lekk seen deux cent mille seen trois cent mille di leen jox cinquante millions de bouteilles man si bouteille nga wér quarante cinq mille ngay fay quinze mille colopathie bi buy raas bi trente mille wala wér bi xaaral sax moom bañ ko jox secret gars yi ñoom xamuñ ni feebar hémorroïde ci biir bi la nekk du ci anus bi boo fajee fële fajoo cause bi mënoo faj c'est pas possible on soigne le mal à la racine bat boo ñëwee bëgg faj eh, sa problème spermatozoïde wala sa problème stérilité wala sa hémorroïde wala sa arthrose mais man damay dem d'abord le mal à la racine. parce que sànq ak spermatozoïde du ma ko faj dindiwoo d'abord cité bi je vais te dire chose képp kuy constipé nga yëkkati lu diis ci exposé à hernie discale mosoo dégg tubaab wax ko hernie discale ñi ko am ñëpp dañ doon seere ñu yëkkati lu diis maa ko ñi ñi ko am xam na xam nañ seere moo gën a bon ci feebar yi seere mm-hmm. seere mm-hmm. aussi xam maladie yi ngay faj yëpp ban moo gën a sonal Sénégal yi. hémorroïde colopathie city franchement colopathie nag moom liñ ci liñ ciy joxe ci garab par jour oh, loolu loolu ça dépasse loolu colopathie c'est que ku ku gis day wax keneen ki te kun garab bi benn yoon doo doo ko bàyyi est-ce que xam nga booy raxas sa biir doo feebar. nit biiram la man na ngay ñëw sax nga Maldives xamoo sax loo dal barke Seydina Mohamed am na ko tudd Fat Traoré le vin bii dañ ko yëru indi ko fii mënul yëkkati lox ay weñ sax dañu doon dugg ci gémmiñ bi garabu kolopati laa ko jox barke Seydina Mohamed deuxième jour moo taxaw boppam yëgal fi ba tey tey tey sax ñëw na rendez-vous parce que colopati day dem ba jox la sax ulcère butit bu ñu demee ba bouché da ngay lekk nga am reflux gastrique reflux bu yàggee mun na daj butit yi mooy infecté mu dem góom góom bi la ñuy wax ulcère estomac ak ulcère d'estomac xam nga du ko wutee estomac bi day métti ulcère bi góom la bii rek moo ko wutee boobu kese tey elle en forme ci ku tëdd xaw ma huit mois la wax xaw te ñoom benn cercle moo leen yóbbu leen ko ci Abdoulaye Diallo moo koy faj dafa ñëw nag man gëwuma ko gëwuma loolu man parce que man li ma gëm mooy alquran laa yaalamul ghaybi illa allah kenn xamul la nëbbu ku dul yàlla seet moom bu ma kenn waxoo ko man xaw ma sama bopp nu may xamee jàmm yow boo ñëwee sax dama lay laaj sa tur i waay mu ngi mel ni ay con y a des gens ils sont dem ci sëriñ naan dama bëgg am xaalis nga ñëw di joxe ay 1 million 2 million 3 million pour am xaalis est-ce que loolu loolu du dugg na xel sëriñ bi jël benn siwo di ci génne xaalis wala nga nga dof xamuñ ni ay naxaate kese la kese kese kese kese du gis nañ fi ay ay ay ñi doon naan ay fajkat lañ ay sëriñ lañu ci plateau télévision bu mel ni TFM nga xam ni c'est bi par le monde entier ñu naan dañuy luxus benn waaye jël mu ne teg leen fii benn benn benn benn kaala ñu teg kaala muy naan ni naan ni di génne xaalis fu mujje fu mujje xamul ay xale yu ndaw mën nañu loolu élastique rek lañuy dugal fi élastique élastique nga dugal fi xaalis bu la neex sol sa grand boobu def nii kaala bi bu ñëwee rek nga naan nii nga génne léegi nag booy yee si tu veux tu prévois même les dollars et nga def ko main gauche bi nga ne yow loo bëgg euro xam nga euro a ngi fi yow bëgg dollar yow bëgg CFA il tout prévu li xam mooy càngat nga sangu nga am alal nga xaar ci yàlla nag da ngay sangu te góor góor ñaar yi rek la war sangu cat ak luy dindi rab góor ak jigéen man boo ñëwoon tey xam nga am naa benn garab boo xam ne day joxe richesse trois cent cinquante mille mën nga teg fii cinq millions du la ko jox su ma la sentirul duma ma la ko jox te man yàlla dafa ma baaxee soo narul wér ci man dañu xulo booy dugg ñu xulo dugg sama jinne di jog dama lay ramasser comme pas possible fekk c'est juste que suñuy raw xam ñoo àndul dama ko ñaan yàlla mun a ngoon mais yàlla bi ma tiim xam ne ne je suis hyper sympa gis nga su ma xuloo ak yow demee ñëwaatal billahi ak alxuraan bi duma la xàmmee man duma xool nit ñi nee naa la un cœur pour vous écouter une compétence pour pour vous soigner Dieu pour vous guérir man damaa tal xool nit man nit nit ki yàlla laay gis ci moom booy wàcc sax kii nekk ci porte bi lay doon eh ñëwaatal suba du la sax xàmmee ah bon billahi du la xàmmee j'ai pas temps la man dama am temps di xuloo bu bonoon yàlla dina def ci man doon faj xoolal tey Europe Europe ñoom ma gën am ñoo ñoo ëpp confiance ci man que Sénégal parce que dañoo gis résultat te ñoom dañuy tëj seen biir di seetaan YouTube yi fi ñuy seetaanee ku nekk dinaan waaw faj na ma lii faj na et la mèche s'allume bouche à l'oreille tey moo ma jox li ma am yàlla xam ne par jour man ce que je reçois de l'extérieur c'est deux fois ce que je reçois du national mooy damay naan boo dem soxla rek ma dem e-, ma dem extérieur ne réew mi xam ne am nañu un digne fils sénégalais bu yàlla may ci loolu am na lu ma mënul faj nag tension par exemple boo ñëwee dama lay naan mënu ma faj tension luy régulariser tension laa yor xam nga mu ngi mel ni AVC dafa am ñaari AVC AVC ngelaw seytaan AVC tension képp ku am AVC te bi nga am AVC sa tension mu ngi ci ay 10 ay 11 ay 12 xamal ne du tension bi mu la ñëwal ma faj la AVC boobu comprendre nga fi may loolu xam ngelaw seytaan tubaab gëmu mm-hmm. te ñun xam nañu ngelaw seytaan am na mm-hmm. nest pas xam nga par exemple poftal bii ngeen di xeeb nii parce que xam nga poftal garabu richesse la poftal garabu jalbu la ak dafu défense xoftal mën nga ci taal nit mën nga ci rey nit waaw mu ngi nii sama buntu kër garab gënu ko te noonu lañ ko yebee garab gënu ko à part bi may joxee trois cent mais boo ñëwoon tey ne ma trois cent cinquante déedéet sangal sa yaram dindil cat ba pare am na benn saawar boo xam ne day dindi rab day dindi fétiche envoûtement da lay désenvoûter ba pare da lay man de ñaar yi laay sangu maa ngi ñaan yàlla su ma laalee bayre sax yàlla mu jàpp parce que xam naa li ne ci bayre bayre daal bi may def mooy bayre xaalis boo lee may wëri xaalis xaalis di ma wër man loolu laa gëm eh, docteur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax gis nañ ne da nga joxe ay solution yu am solo te sénégalais yu soxla ko euh, pour atteindre maximum de personnes euh, nan nga organiser sa liggéey am na ñu mën a ñëw Dakar am na ñu mënul ñëw Dakar est ce que da yor ay antenne relais yoo xam ne pour mën a atteindre maximum de personnes pour mën a jàppale sénégalais yu mën a faju xalaatuma ko sax naa sama doom mu ngi xamul benn garab nga accident bi ma am cinq avril mënoon naa ci dee parce que ñi garab fii lay toog gis nga garab yi des xamu ci toog nag naan il est docteur ñu bëri ñi ngay naan ni ngay dégg sama bàyyi laa ko donnee noonu la ñëwee de xam-xam kenn du ko doon da ngay jàng yonente bii moo waroon jàngal nit ñi moo waroon ëpp xam-xam di ko jàngal nit ñi di ko transmettre nit ñi dañ ka jàngal Jibril moo ko jàngal yow naan yow dañ la sol en parlant sol kiis am na pour neexal ne xelu xale man boo ñëwee par exemple nga ñëw ne ma kiis mag ma ne la déedéet 18 rek la man kiis bi ma yore 0 ba 18 ans la pour neex la xel justement am na benn garab bu may joxe muy bayre njaay bu leen foog ne boo laalee bayre njaay rek une semaine rek day dox de déedéet bayre njaay dangay ngay laal lu mot 28 jours adadu tuuba ba mu sax ci sa yaram sénégalais moo yàkkamti mu doog a ñëw waaye laal une loolu baaxul sax. waaye boobu daa xaraam loolu baaxul man du ko def nit kooku c'est important ma souligner ko beneen point ba mu bëgg si suñu ngeen baal ma mos naa wax ne je connais tous les francs-maçons de ce pays gars yi ne man franc-maçon la dama leen bëgg a xamal dafa am benn njiitu réew bu ma yar kooku mu doon représentant franc-maçon ñu fa doon dugg xam naa leen foofu laa doon waxee ñi koy fréquenté xam naa leen foofu laa doon waxee man man du ma franc-maçon man yàlla laa gëm de man allahu ismu allahu laa wér de ba am li ma am allahu tout court astaghfirullah pas tout allahu nañ ko réel nag xam nga tuur boo mënti wér de ca àdduna ci allahu ngay ñëwaat boo wér de ahmun ma ngay wax boo ne chey jegi si allah ngay wax boo ne amul ax lamawut allahuma ngay wax boo nee suka bit allahuma ngay wax boo nee day sun te sun allahuma ngay wax boo nee baloo xasu sax sasu xasu takim sasu allahuma ngay wax boo nee sax sasun asa xasu sasu takim allahuma ngay wax loo mënta wax allahu rek kuy allahu bi ngay ñëwaat donc allahu mooy lépp man allahu laa vérité ba am li ma am te billahi su ma jëloon course léegi-léegi di wérte damay tëju suba sama journée du neex dafa mel ni yàlla dafa ma ne may naa la dèjà loolu ñaanati mos na woon rek benn sam benn xarit ma ne ko yàlla may nam lépp na mooma dara mu ne mënul nekk yàlla du ma ne ko yaa doylu rek te man xam na am naa lépp li ma soxloon ci yàlla may na ma ko te leer na ma ne sax ñaan naa ko ajjana ci àdduna ajjana ci àlaxira te may na man de maa ngi dund ajjana may man je n'ai aucun besoin part de soigner les bu ñu ñëwee xayrum bu ñu c'est pas mon problème su ma tëddee cent ans di nelaw dinaa lekk daan naan parce que yàlla moo ne wa min dabbatin fil illa ala allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin bi donc du liggéey bi moom mooy dundal yàlla moom mooy dundal damaa doyul ñaar la ma gudd fan bon dëgg wér. te képp ku ma bëgg na ma ko ñaanal. képp ku bañ man maa ngi la koy ñaanal yaa xam. yàlla la ko yàlla defal aussi tamit bëggoon nañu xam tey hmm. euh, talent bi nga yor si wàllu faj. Hmm. tey est-ce état bi bu la sollicité woon. Hmm. pour collaborer ak yow. pour nga jàppale nit ñi pour ñu faju. dañ ko mën sax ñemewuñu tubaab yi. tubaab moom tubaab yi ñoom moom réew mi lu wax rek la wax. gëmuñu suñu bopp si suñu bopp maa ko wax nañ ci tëj bon état bi président Madagascar do dégg ngeen coronavirus mu ne leen ah, trouver solution pour coronavirus pourtant c'était réel mais xoolal politique politique bi ñu ci def ba ba kenn gëmu parce que bëgguñu bëgguñu alal ji eh, eh, ñëwee foofu bëgguñu bëgguñu bëgguñu résultat yi jógee Afrique ils veulent que ah, ils veulent monopoliser loolu dong la loolu dong la te man leer na ma ne ko mel ni njool ba mun na faj coronavirus man de am naa garab coronavirus jaayu ma ko c'est pour sama bopp la usage personnel man début août amoon naa coronavirus parce que Seydina Mohamed amoon naa faj sama bopp maa sama bopp sama garab a ngi nii jaayoo ma ko nag néew ma nag damay faj si coronavirus garab bi yow yaa ko créé composé moo tax ma ko composé ku mën garab moo ma composé lu ma fenn lii ak lii ak lii ak lii la ci def mu jox ma ci 5 kilos xaw ma su ma ci soxloon 500 kilos daf may jox man j'ai des vaillants connaisseurs de vaillants hommes d'État man ay président ñoo may sollicité de man duma ko dàbb de man man ma damaa nam ma dara man nam moo ko <laughs> boobu de hmm. allez-y village demandez si je suis vrai homme d'État ou pas guddi guddi Kanel lu mu am na Kanel la jëm nee naa la benn affaire mon seul objectif est de construire le pont entre Dakar et Gorée may ko état chaque région de Dakar de Sénégal ma tabaxal ci Sëñ Tuubaa juma ak résidence. waaw. xam nga sama mbokk dañ maa bañ parce que murid laa léegi maa tey. lu mu lu mu wàññi ñu ngi gis man may may avancé rek man damay avancé rek Sëñ Tuubaa laa àndal avancé rek te ñu ngi may ñaan di ñu ma duloon ñaan sax ñu léegi ñu ngi may ñaan yëpp Bamba hmm? waaw maa ngi tabax résidence Xaadimu Rasul Kanel ku dugg Kanel tey di nga ko gis mu neex la di nga ko gis mu naqar la di nga ko gis 4 R plus lépp kër Sëñ Tuubaa la chiffre 4 bi moom la moo tax ma defal ko 4R plus la dóor ci pisin ba mu rafet ba mu yànj parce que nag pour man moom ma représenté Kabane la perfection te pare gu ma de ba léegi ñu ngi si chantier bi lu ma ci deful rek dafa su ma paree juma am laay tabax au Fouta mosquée au cœur du Fouta ku mu neex ku mu naqari bu yow jël seen kurus yi ñu naan du fi am nañu nañu xam ne naa ko def ci laa nekk te kenn mënu ko tere def incha allah docteur ñoo ngi lay jaajëfal bu baax euh, presse bi yëpp dañuy ànd ak mbégte waxtaan bi ñu saq yow vraiment euh, question yi nga xamante jot nañu nga ko laaj vraiment nga tontu ñu si ay question yu positive ay réponses yu yu positive am nañu satisfaction si laajte yi nga xamante ne laaj nañ la ko mm. bu fekkente ne am nga ay kaddu yu mujj yooyu daaneel si émission bi je crois qu'il y a Sunugal 24 ici Sen TV Info mm-hmm. je vous remercie Actubuzz maa ngi leen di remercier Setsima TV maa ngi leen di remercier cey suñu cey Sénégal je News maa ngi leen di remercier Dakar Midi maa ngi leen di remercier Leader TV aussi maa ngi leen di remercier laaj euh, c'est pas grave am lu ma bëggoon joxe mais ça va pour prisonniers yi mais par contre ñi doon faj ñiy faj asthme ñi ma faj asthme yëpp ci quatre semaines yu wér dama leen jox benn alerte hivernage mu ngi ñëw nañu xam ne asthme bi dina dina dikkaat ndox mi laa souffrir rek dinañu sentir euh, quelque changement nañuy préparer ñu jël deuxième ordonnance asma noonu lañ koy fajee asma dañ koy faj hivernage mu wér peng une fois wala bu dee or hivernage koy faj deux fois koy faj deux ordonnances koy def de quarante minutes ça c'est important suñu. voilà. jërëjëf docteur bu baax. est-ce que xam nga on vingt trois heures vingt trois xam nga kañ nelaw démb à quatorze heures démb à quatorze heures donc j'ai j'ai fait presque combien. 34 heures temps nelawuma billahi wallahi taala wal kitab rien que pour sauver les gens merci beaucoup jërëjëf